Laurent Mat euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. ñu ngi lay fay bu baax di nuyu waa 2A TV. di nuyu sénégalais yëpp. ñu ngi lay fay bu baax. di ñaan ñëpp jàmm ak sutura. amiin ñaara bi ñu bokk ko. dama nag dama retard dama dama retard dama yeewu rek naa naa dugg ci émission bi far mu fekk muy jeex. mu jeex macha allah mais tey. waaw waaw. Mhm, tey dugg nga alhamdulilah. waaw naa àddu rek ci li xewati ci réew mi. Mhm, yow rek la ñuy déglu. Euh, may commencé ci président Macky Sall. Mhm. ndax su ma juumul barki démb jour bi ma waree wax dafa am li ma waxoon mhm. dama ne woon Macky Sall day dama jot ñaar ci moom parce que sama xel mi ngi xalaat kii ku bugg a def troisième mandat la mhm. waaye man jot naa ne fukki xalaatam euh, mayu ko mu mu gën di damay def troisième mandat loolu waxoon naa ko barki démb mhm. man nag euh, mën naa ne dinaa ko remercier mais tuuti ma ne jaru ko woon parce que dafa am li tax mhm. li tax mooy Macky dafa am lu mu fi fekkoon mu dindi ko am lu mu fi teg ci biir lu mu fi teg loolu moom mu waxee ko jëfe ko binde ko mhm. bindi ko mais maanaam du ma def troisième mandat à partir ci man lu jóge ci man kenn dootul def trois euh, kenn dootul def ñaari mandat bugg cee tegal beneen moom waxal na ko boobu kon moom li ma li ma doon bët ci moom mooy mu taxaw ne damay def troisième mandat loolu moom bu ko defoon dina ma bët mais lii moom bëtuma euh, may ñëw rek man demoo paar demoo paar waxam barki dem bu gaa kilifa bi wax ñu koy ñu koy nen la waaye man duma part ay waxam man personnel gamuma ko gis nga duma def troisième mandat bii man ma ko fi ma koy gàmmee mooy élection am deux mille vingt quatre élection ci boppam man sama dima part man ko war naa ko laa gëmul <laughs> élection deux mille bëgg naa ko maa koy ñaan la waaye man gëmuma ko hmm. parce que waaw parce que xam nga maanaam ñiy jàkkaarloo dañoo xaw a yor ji koy ceddo gis nga maanaam mën nañoo jóge xeer wala ñu poosu paaka ne la ñu bëre fekkee na maanaam dañ la bëgg a pour jam la loolu nag wax wolof laay wax foofu mm-hmm. kon ñun Sénégalais yi balaa ñoo gam ne carrément ngóor si bi def troisième mandat nañ baay ba deux mille vingt jot élection yi jàll booba de mun naa am mais élection deux ci boppam man laa gëm ne man personnel waxuma du am de waaye man gëmuma ko mm. waaw gawuma ko d'accord léegi euh, euh, may ñëw ci côté ah, ah. Mm-hmm, fan nga teg ni yow gëmul wala lan lan moo tax nga jàpp ni élection 2024 du am lan moo tax nga jàpp loolu jërëjëf waaw xam nga ñun dañu nekk ndaw waaye nag ñun mag moo ñu yar mm-hmm. gis nga même ñun buñ buñ buñ la xamul sax mm-hmm. ak ak ak maanaam loo nga koy wax dafa neexam bu fekkee yow jànga jàngal nañ la nit ñun dañu di ndaw mais dañuy jàng nit gis nga comme ni ma la wax dama leen ne suma woon a gëm ne Macky Sall dina jëm ñoom ñoom dinaa def troisième mandat billaay noonu laa gëmee élection du am deux mille du am de parce que man du ma sëriñ du ma gisaani kat du ma dara. xel laa am di xalaat. Mhm. mais man xam ma ko. Mhm. parce que euh, président Afrique yi maanaam ñoom première fois ñoom déjà gamuñu seen bopp ci kanamu dër yu weex yi ba pare. ci biir nit ñu ñëw ñi ñoom ñu def seen bopp ay yàlla yu mag waxuma la ay yàlla ndaw de ay yàlla yu mag parce que gis nga ñun ñëpp ay boromi xel lañ di xalaat mm-hmm. gis nga lii de mën naa la ko wax sama jaar mm. man toujours damay ne man duma pasteur waaye man sympathisant la man Sénégal rek laa gëm mais gis nga bu ñu yaakaaree ne dañu ne Macky Sall du dem Ousmane Sonko du dem voilà Macky Sall nee na du dem ñu toog ba bi ñu jamono ñu ne comme Sénégal dugg na fii génn na fii léegi nañ pousse élection yi même on a wala deux ci biir pousse yooyu Macky Sall jóg ne man maa ne woon du ma def troisième mandat mais deux mille vingt quatre laa waxoon mais tey jóg gën nañ deux mille vingt quatre pare naa pour bokk parce que ñi ma wor seet naa ba seet mais gisuma carrément ki ma mën a joxe ne carrément kii mooy dem kon man duma part damay dem loolu mun na mun na ko def. d'accord. Euh, loolu jàpp comme li Ouattara defoon daal voilà. jërëjëf jërëjëf. <laughs> waaye gis nga li ma la mën a wax boo yoree bic bi ndal de. Mm-hmm. gis nga li ma lay wax nii lu ma gëm laa lay wax nii. Mm-hmm. gis nga képp ku yaakaar ne troisième mandat moo indi problème entre Macky Sall ak Sénégalais yi képp ku ko yaakaar problème troisième mandat moo ko waral kooku mu ngay nelaw bay yandoor wala mu ngay nelaw bay yënte. waaw. gis nga tànk may ñu ngóor si jam muy Ousmane Sonko Ousmane Sonko faral ma ko te fi mu toll sama bopp sax laa gën a gëm ni Ousmane Sonko parce que gëm naa Sonko nit la rek Sénégal la comme Sénégal yi waaye nag naa ko yàlla na ko lu ma mayul man mais gis gis nga képp ku ko bugg a xeex ci maanaam doxalin bu mu bugg a doxalin Sénégal yaakaar naa képp ku ko bugg xeex da ngay xaruse parce que xam nga lu tax soxna jaara yara moo naqaree xeexal yàlla moo naqaree xeexal moo moom la kenn mënul xeexal waxuma la Sonko yàlla la de déedéet mais yàlla parfois day mbër day mbër nitam parce que yàlla amul len len len lu mu xañ doomi aadama gis nga loo yaakaar doomi aadama mënu ko jàppal na doomi aadama yàlla may na ko lu ëpp loolu leen rek la yàlla dul may nit muy nga nguuru ko am na solo am na solo te gis nga yàlla bu ne may naa kii lii doomi aadama bu ko ko naree xañ rek bilaay day metti ci kooku sax am na solo moo tax may mhm. bu président de la Macky Sall bu fekkente ne jàmm moo ko gànnaaw Sénégal comme lu mu wax barki dama te gàmmu ko parce que jàpp naa ne gàmmu ko bu fekkee jàmm moo ko ñëw. am na solo na bàyyi képp ku yoon may nga dem mu bàyyi ñëpp dem boo ko defee jàmm ñooyu mais gis nga candidat bi bu ko bu ko naaree bu ko naaree soo nga jaaree Diouf dina dina dina jibbi fu kenn foogul te yal na loolu bu mu am Sénégal. jaajëf nañ bàyyi waa ji mu dem. jaajëf merci salaamaaleykum wa rahmatullah merci beaucoup Chromatine depuis Maroc ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax 88 628 73 08 99 25 24 02 77 914 64 93 su ko defee di ngeen daal di ngeen mën bokk ci xamante ni rek mooy émission bi lee di euh, seen euh, kàddu ponk ñuy waxtaanee ni ki démb Khalifa Ababacar Sall euh, ma nga woon ca France 24 àdduna ci tolluwaay réew mi ci dialogue national bi nga xamante ni ñu ko doon amal waaye tamit ci polémique bi nga xam. xamante ni jàpp na ni wala sax moom polémique la ko daal di tuddee moom nag mi nga xam ne ni fii ci Sénégal duguleet moom muy amal wala sax muy teew ci dialogue ndax nag atam 2017 euh, euh, ngi woon ci ay jafe-jafe waaye teewul euh, ñii di waa taxawu Sénégal participer woon nañ ci dialogue yi fi amoon mu ne nag loolee ay polémique dong la te it sax nag daawul tontu yu ni mel ngis tey kii di Barthélémy Dias moom mi yëkkati ay kàddu di xam ne daal dialogue bi waaye tamit mi ngi daal di xam leen lu ëpp ci li nga xamante ni waxtaanee nañu ko jamono ji toll nii daal nay féete boor ndax nag euh, daal nañu koy antul waaye am na loo xamante ni moo pusaloo jamono ji jàpp na ni daal mooy na ñëpp daal di euh, bokk ci lay élection mu ne loolee nag dina nekk dina nekk jàmmi réew mi waaye tamit dina nekk euh, jàmmi Sénégal mu mel ne am na beneen mbokk mu nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Oscar Sierra ñu ngi lay jëfal bu baax ak sama sama maam ah ok sama maam ak. sa sa sët bi sa sët bi sa sët bi nekk Gambia. <laughs> sama sët bi nekk Gambia maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax. soxna maam bu Zabaale maam jaara ziyaara maa la na ngeen ñu ngi fi alhamdulilah ndaka waa Gambie ñëpp a ngi si jàmm. wallahi ñu ngi sant bu baax a baax a baax ñu ngi ci jàmm bu weex tal ah macha allah yal na jàmm sax fa dàq. allahumma amiin ana Seyda sa beneen xarit naataango bi ndeysaan. Ah, Seydina ah, Seyda Marietu mi ngi fi. elle va bien. Ah, mm. waaw neel ma ñëpp. waaye seetal ma leen waaye. dinañ ko dégg incha allah. man eh, ci ci ci ci ni may déggee xibaar yi ak euh, internet bi ci kool yi yooyu ni ma ko jàngatee. Mm-hmm. waa kala ñun Afrique fi ñu toll dañ toll ci ci politique boo xam ne président euh, ku jiite daal kum neex mu dem kum kum neex mu téye ko ne doo dem kum neex mu bàyyi ko ne ko demal man loolu laay laajte sax loolu foofu lañ toll wala déet. Mm, ak it ah, euh, dama foog ne loo xam ne kenn ci ñun moomu ko. Mm-hmm. xam-xam ak wareef mooy tax nit ki yàlla dogal mu war a bokk ci ñi koy laaj mhm. yàlla mi koy séddee di ko joxe it daf koy def ca xoli jaam yi yàlla dogal mu mooy xulli allahumma maalikal mulki tu'ti mulka man tashaaw mhm. mu ne bu joxe nguur dafay jël nguur def ko ci xol yi jaam yi bëgg ñoom ñu ñëw euh, bëgg la dimbale la jàppale la mhm. maa ngi dégg léegi Kurama Kurama wax na baat boo xam ne xam naa moom itam dafa am ku dafa am suñ borom da léeg dafay am lu mu dafay ilham doomu aadama mu am lu mu génnee ci kàddum loo xam ne moom moo ko wax waaye yàllaa ko ko wax loolu mm-hmm. li wax ne yàlla misaal ma lay joxe rek maa bu bu bu bëggee fal doomu aadama wala bu ko bëggee jox cër bu bu sampee nit bu sampee nit maanaam nit ki bëgg koy sempi mu mel ni mbir ma daf ko misaal na kuy xeex ak yàlla yombul mooy ne yàlla sàkk na suma maam ji daara sa askan wi nit ak ginne taxaw na maam jaara mii du fi samp yàlla sempi leen samp fa maam jaara te kenn du ko mën a semp. Mm-hmm, dëgg ah, loolu wax ji gis nga mbir mi nekkul ci loxo kenn ku foog ne mbooloo mu la topp ay ndomba tànk xam-xam laak yii yëpp gis nga nañ nañ jox yàlla li moomal boppam. Mm-hmm. xol bii kenn ci ñun yàlla Moustapha ba mu daan ñaan dafa daf na ko yàlla allahumma ya muqallib al qulub sabbit qulubana ala taatika wala sabbit qulubana ala diinika yàlla moom moom xol yi gis nga ni nga amee sa sa sa weccet sa weccet xamoon coins ko pièce u xaalis nii mm-hmm. ni amee boo amee deux cinquante franc bi wala xam naa xaw ma ñaata waaye bu fekkee ne pièce yu ndaw yooyu no ngeen amee Euh, ni nga koy ni nga koy wëlbatee sa loxo bu la neexee nga yóbbu ko sa loxo ndeyjoor bu la neexee yóbbu sa loxo càmmoñ yàlla xoli jaam yi loolu la mel ci moom yàlla mooy saxal xol yi ci lu mu bëggal nit ñi lañ bëgg yàlla koy jël saxal ko ci xol moo koy rocci ci yi gis nga nañ bàyyi caaxaan yi tamit liggéey gis nga fii amul ko fi am doole joom xam ne yow la yàlla teg ci kanam nit ñi yooy yaay tànn koy jiital ak kuru jiitu ma loolu nekkoon nit ñi gis nga ne politique bi war naa toll foo xam ne ndaw ñu nañ jël seen matuwaay jëfi mhm. caaxaan yi xam ne daanee woon nañ ko ñële ba bëgg leen a indiwaat ñu ne daanoon leen ñeen ci justice ci ci ci sisement dem defaat ko ci politique ñëw na nañ ñëwaat bii moom bu mu fa àgg na na dakk waaw bii moom bu mu fa àgg waru ko waaw na na dakk na dakk da mhm. ci ngaay jël léegi na jël lii lii mu dakk waaw kon de xamoon nañ ne tappale am na ñu bëgg ñëw defaraat ko ñëw bëgg nag bii mu ngi ci tàng tàng bi na na dakk in na jël li mu jeex takk. am na solo ngeen baal ma am na am na solo fii ci gàmm. salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh euh, euh, ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax sëñ Bassirou depuis Gambie ñu ngi koy nuyu euh, lay seen noonu maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax woote ci numéro yooyu bu ko defee ngeen daal di bokk ci waxtaan bi àddu ci ponk yi nga xamante indi nañ leen ko ñeel Birame Souleye Diop bi nga xamante ni nañu ko ni ki tey jile bi nga xamante yëkkati na ay kàddu yu nga xamante jamono ji moo tax ñu wax wala nañ moo tax ñu daal di koy convoqué foofule mu mel na beneen bokk mu nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. Moussa Lam mi ngi siyaare. ah sa Touba maa ngi lay maa ngi bu baax a baax. siyaar siyaare nañ la demoon. waaw ñu ngi sant ku tedd ki rek. alhamdulilah naka tàngaay bi ana ana sa ana sa wétal wi tàng na kay tàng moom def na ko lool moom. trop sax. <laughs> moom dëkk bi moom yaakaar naa. tàngaay bi moom buñ ci boolee xol bu naqari moom day métti lool waaw ñu ngi lay siyaare di siyaare sama gaay yi fi jaar yëpp di siyaare sama mbokkum séeréer boobu kàddu yi tegoonu ci yoon macha allah di siyaare Oscar nag gën naa ko dégg waaw di di di ko di ko jox wàcc waayam mm-hmm. di leen siyaar bu baax a baax di nuyu ñëpp Serigne Ndiaye euh, xam nga. soxna jaara lu ñëpp wax rek dëgg la ndax ñun kenn yoruñu kenn yoruluñu suñu kër yàlla rek lañ ci yaakaar ak suñu loxo yi ñuy xëyee di wàcc kon am na loo xam ne bu Sénégal yi maasandoo yëkkati genn kàddu daanaka mu nekk genn kàddu kon Macky Sall war naa xam ne nguuram ba mu jeexee dafa yàgg trop barke Sëñ Tuubaa Macky Sall maanaam man de d' accord naa ne d' accord naa ne deux mille dix neuf moom Macky yoroon réew mi moom 2012 moo ko gagné te moo ko yoroon man li yaakaar waaye li tax ñaare bu may wax daal ne Macky yéen lay waxal waxut ak man man bi élection 2019 yi laa ne man Macky Sall doon tuut président ndax d'accord ma ak moom élection yi normalement deuxième tour daa war a am man booba laa xam ne waa ji fu mu jëm ak ñun ndox amu fa. te hmm. loolu sénégalais yi bëri nañu ko xam waaw xam nga moom ñaaree daanaka ku am kàddu ku nekk boo yëkkatee sa kàddu Macky nga am ci xalaatu nooy nooy def ba dootoo wax. Hmm. xam nga doomu aadama nekkoon na fa gën a naxat mooy biir way juróom te teewut suñ borom a nga fay dundal aar ko fa ba indi ko ci àdduna loo mën a lut nit nag ba ko yàlla sàkkee ba yàlla sàkk ko mu xam-xàmmee di dem ko dikk am xalaat nga am programme mu am programme nga tee ko wax xalaatam loolu moom wax dëgg yàlla yàlla bindagut bindeef mu ko am mu yeewoo ci mu yeew ci àdduna bi te Macky fi ne place boobu la bëgg a toog te xam nga sax man Oscar yóbbante yóbbante woon na la ci man ci Macky Sall moo tax moo tax ma ne Macky ngi nii di wax ba naan man bokkuma boo nite woon doo toog ba naan bokkatuma loo xam ne nii loi bi sax da koo tere ngeen toog di noos ba nguur gi jeex ngeen wér di wax ba ngay jógee Fatick di ñëw kenn xamu la réew mi la jël yafal la yow nga xëy di fuuri bu doon Macky doxal na yoon ci réew mi kon Farba Ngom du am woto bay ami kër koo xam ne nii xalam la xam ak riiti nga xëy nu naa Farba ngi nii yor milliard justice bi xew ci réew mi sax jaaxal na ma jël say gone yóbbu kaso lii ñaaw na justice bi xew ci réew mi man jaaxal na ma jël say gone yóbbu kaso lii ñaaw na lii moom bu naqaree Macky man dama jël si Touba man bu ko naqaree dama jël si Touba ndax dama wax sama xalaat ci réew mi dong. waaw xam nga fi mu ne nit ñi toll nañ foo xam ne gis nga nit. Mhm. barke alxuraanu karim amoon na defe naa jege na daaw. Mhm. benn waay woo ma naan ma yow saa Touba dégg naa da ngay dem ci ay manifestation yi xewoon Mbàkke yi deme noonu man ne ko waaw daa daa am feneen fu manifestation am fu Ousmane ko joxe ndigal. fu nga dem fa mu ne ma kaa bëgg nga déglu ma ma ne ko barke Ahmadul Xadim bu amaatoon mbàkki suba damay dem man de wax dëgg yàlla taalu taalu ma alale jàmbur waaye képp ku yëkkati gaas làkkara mu san sànni ko sànni ko sànni ko ma jël sama xeer yi ma yaakaar sànni la ko man loolu laay tuddee man loolu laay tuddee manifester mais du ma yàq alali kenn du ma du ma du ma du ma jàkkaaroon ko police ba mu leer man naa ko lor sax barke alxuraan ko du ma ko lor. ndeysaan am na solo. Mm-hmm. waaye ba ma wooyee expliqué naan ay di ma jéem a menacé ma ne ko sëñ bi yow yaa yor sama numéro téléphone xaw ma ku la ko jox ak foo ko jëlee waaye dama la ko yombala bu fekkee ndakaaru nga nekk bu uppee allo Dakar cinq mille la lay cinq mille ngay fay ñëw Touba bu dee yaa ma soxlaa gis mën naa la fekk si mën naa la tikkat fi ma nekk nga fekk si ma man gën ak mën laa bàyyi xel te ñëpp la ko yàlla wax mooy kullu nafsin saa yaxatin mawti bakkan bu jëm dund di nga ñam dee loolu ñëpp la ko wax ku ko dégg ku ko dégg yàlla yàlla wax na la ko sama sama fan yi ma war a dund ci àdduna yàlla xam na ko noté na ko bu ma ko nammee weesu deegu ñaaw laay laay laay faatu. kon man réew mi réew mi réew mi li ñëpp wax rek Macky Sall dafa daanu bëgg a daanu waale Ousmane Sonko pro yi fi jeexagul de toog bam neex la nga toog naan ay man bokkatuma ak ay ay ay ay bu buñ bëggee taal nañ waxtaan ak Ousmane Sonko ndax man loi bi ma tere na du ma bokk loi boobu moo ko dafa am yoon jafe-jafe yoonu am Ousmane Sonko daa amul ak yoon jafe-jafe Ousmane ko maanaam état bu Sénégal la amal jafe-jafe. dangaa xéwloo xale bi ñaari at ngeen jékki-jékki daan ne yow xéwloo woo ko sax far la léegi nag corruption de la jeunesse lañ ko topp Macky Sall corruption boobu xamu wax ne su corruption bi ci loi yi la amee ci réew mi nag génn wax ko moom xamu ko moom moom Macky Sall mi gaa yaakaar moom xamu ko nit da ngay wax loo xam ñi seen xel màcc ci wàllu googu sax nee nañ ay mineur la loi boobu ay mineur lay waxal Adji Sarr nga xam ne Adji Sarr nga xam ne Adji nga xam ne fii ne nii daanaka mat na mat na Macky Sall tànk nga xam ne magum jëmm la kooku di magum jëm kooku ab ak kooku kooku lan la kooku maire la wala wala dañu naan ay ay corruption de la jeunesse xam nga maanaam fi ne ñun soxna jaar ñun moom wax dëgg yàlla man damaa ragal ne est-ce que ñun jaayu ñunu bu yàgg ñun defe naa jaay nañ ñu de barke yàlla yaakaar naa jaay nañ ñu ndax yow bu fekkee ne Macky Sall day jékki-jékki maanaam lu wër am Macky toog Sénégalais yëpp di ko déglu maanaam ku nekk naan Macky war naa wax ngoon Macky man baatu Macky war wax ngoon ni ma soofee woon. billahi ni ma ci amee lu ma naqari ndax damaa xam ne kii ngeen kii ngeen di déglu tem war a wax wax ja aju tom ngooñ Sénégal yi di ko déglu naan Macky daa war a wax moom wax naan ay du ma dem a mandat ñeneen man ne barke yoo xam ne fii nekk nii genn wàll ga ca ñoom ñëwuñ ci buumu sëy taxawaalu la ñekkee Ndakaaru fi ne ñu yuuxu xam nga lu tax ñu yuuxu du Macky Sall nu ñàkk de mooy seen la daan duufal seen poste léegi seen poste dootu duufati nan wuti jëkk dem sëy nan dem sëy seen borom kër yi yor leen di leen jox dépasse moo gën ñu topp maanaam député APR e di lambar lambar ci mbedd Dakar fu ni ngeen xam jëm jéeg jay ñay foofa ñay jooy foofa ku am ku ci am jom néew ca ndax Macky dafa ci réew mi lu tax mu fiy jóge ñu jooy boo dajale woon cent personnes quatre vingt quinze pour cent yëpp maanaam bi Macky ne bëggatumaa bokk sax dañ ko ne yow ni nga soofe wóoroo woon wax sax bëggatumaa bokk yow na nga wóorutute bokk sax bay bokk léegi yambari affaire yi diriyanke nga xam ne maanaam sëyuñu bàyyiwuñu maanaam ŋeccuñu defuñu tus balewuñu paasewuñu dikkuñu dara naan dañuy jooy dee leen ngeen a da ngeen di jooy hmm, hmm. jërëjëf mais mais mais Satouba Satou Ba duma la bàyyi te euh, xam naa ni sax seen leader Ousmane Sonko day bañ ku leen divertir mais. Euh, waaw euh, Barthélémy Diaz de sànq dégg nga déclaration bi ban jàngat nga ci am. waaw xam nga Barthélémy Diaz. Hmm. xam nga yow soxna jaara état daa na fi mu ne nii boo boo gisoon ab sàcc yow mu lay leer ni képp sàcc la xooxal ko diimi rek toog di ko xool. Mhm. jël da jël dix millions ñaf ci day jël dix millions ñaf ci bi da waaxu wéy tey geestu moom fan jaar ak Macky Sall ba tax muy wër di xëw na ko wax nit ñi fam jaar ak Macky Sall ba tax na ko wax nit ñi moom moom yooyu muy wax man billaay walaay talaay gis nga man soxna jaar ni ma gaawee jàpp waaye ni ma gaawee bàyyi gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga bu may jàpp nit ki xam nga ci la ma koy jàppee mooy ci ay waxam waaye bu may bàyyi nit ki ci ay waxam laa koy bàyyi moom moo toog naan Macky Sall soxla ma ko gis Macky Sall soxla ma ko gis paam ngañ naan ko naan ko lu tax maan parce ma ko gis quatorze personnes dee amul benn enquête loolu mooy Sénégal Macky Sall moom moo ko waxoon barki démb ba toog fii di tooyalu gémmiñ di wax ak Sénégalais lu Sénégalais yi a dégg kii mënu fee wax lu Sénégalais yi a dégg moom mënuñoo tourné moom moom baayam baayam xam nga Balla Gaye deen ci xaalisu ngént lañ ko xaalisu mbër xaalisu làmb maay xaalis xaalisu néew sama noonu mm-hmm. boobu moom ko ngéntee moom Balla Gaye moo pa Jean-Paul Dias moom Jean-Paul Dias moom xoolal ku ku nguuru mu bëgg ku nguuru mu bëgg a mu bëgg ay wolof a wax nag Jean-Paul Dias ku nguuru mu bëgg a buuroo léegi moom moom moom moom moom mii dañ koo ngénte ci xaalisu askan wi yaa ngi dégg. Mhm. système bee ko ngénte ndax baay bi lu Macky wax la wax lu Macky waxut waxu ko yow xam nga ne na jaara nañ waxante dëgg yow bu sa baay demee reerandoog Macky Sall. yow sa doom nga jóge fee reerandoo Ousmane Sonko yow doom ñi nga ne Ousmane Sonko moo fi nekk waxoo dëgg la sa baay wax nga wax jërëjëf. <laughs> jërëjëf Satou Ba. moo baar ñoo bokki bagage barki yàlla moo ku leen lakk ku leen rey lakk leen duñ xeeñ moo baar ñoo bokki bagage.